laas di ab journal xëy na ci yëy yàbbi nee na daal euh, Mohamed Sis mi buuru Maroc loxoom génnul ci li nga xam ne mooy euh, lii xew ci cité kër góor gi Assane wax nañ ci yu bari nag nee nañ sax ñenn ñuy libéré fan yi gi loxoom génn ci ba wax nañu sax ni toog jataay bi war a am ci président Macky Sall pour ñu juboo moom moo koy dox te loolu dina am balaa yàgg Assane kon muy weddi lële wala Fofana di weddi journal bi hmm. waaw Ah, waaw moom de lu baax la ndax nga am sa sa mbokkum dëkkandoo sa mbokku dëkkandoo yi ñu nekk ci ay jafe-jafe ak ay xuloo ka xeex ak xastante ka yàqante nga ñëw ni da ngay sol saw daal pour fexe ñu nekk benn yaakaar naa jërutoon sax. xastante ka yàqante wala jaay doole. xastante yàqante jaayante ak doole lépp kay da nga ko fay gisul. xasante. waaw ñuy xasante. xastante ci réew mi. waaw moo damay laaj rek monsieur. yow da ngay dégg nga toog nga dégg ñaan diw diwa ko ëmbal diw diwooy bàyyam diw moo tëdd diw diw moo yoole diw. waaw mais diw moo sàcc 94 milliards diw moo def naan maam réew mi kenn xamul ñëpp di xastante di yàqante der. loolu lépp ngir lan ngir gouvernement yorub gouvernement. lépp yorub bëgg ñii bañ ñi ngeen bëgg. d'accord léegi nag loolu lépp su amee moom moom di Mouhamed Siis jurul sax muy woo Ousmane Sonko ko ko lijjanti jurul mu ñuy wax ñun dara na ni président Macky Sall man de nii laa doxee sama réew am jàmm doxee Mm. président Macky saal doxe ko réewam am jàmm. Mm. mais Ousmane Sonko président Macky Sall jotewuñ dara. ba tey loolu laa dara lañ jotewuñ ah waaw kii dana ko dana dama lay dugal fii kii ne ko doo ma fa dugal. mu ne ko mën naa la faa dugal mu ne ko moom man nga am nga doole ji waaye gone yet am nañ nee nañ du ma dugg nee nañ Sonko gone 15 ans 14 euh, ans 25 ans ñoo ko tee dugg si kaso bi mais du benn mbindeef bu tee Ousmane ko dugg si kaso bi. Ah? benn mbindeef laa kenn ku nekk nag mën ngaa toog naan buurum nangam ak. ñàngam buuru buuru buur bu mu mën a doon ak président bu mu mën a doon Maroc soriwuñu de nga man France ak ña si ñëpp laay waxal moom ñoom mënuñoo tee Ousmane ah, Sonko ma maa ko wax buur ngay waxal de ma ni buur man mi buur la buur bokkul ak président de waaw buur bokkul ak président de ah. bokkuñu de en tout cas daal lu mën a xew ñoom ñooñu ñëpp amul kenn ku tee Ousmane Sonko dugg mas président Macky Sall tëj ko kurut gone yi waaw léegi ci gisaat nag ba waxoo ci de ki nga doon wax dem moo wax hmm. tuddoon na lii tuddoon na maanaam chroniqueur bu mag bi ci réew mi Siré. Hmm. lii waxoon na ko ba wax réew mi ak jubóo bi fi mu war a am yëpp. tudd na xuloo dafay bi laa wax. jubóo bi laa dama ne xuloo dafay amut. yow yaa wax sànq ni réew maa ngi xuloo. Hmm. asana vraiment incohérent nga de xastante waaw mais xuloo rek. non non na ko. président Macky Sall daal fi mu nekk nii lépp mi ngi si loxoom. la mu waxoon ne maa teg coono bu tegee coono Siré na ko laa wax lii xew. te nga bàyyi Siré Siré moom baa ko <laughs> na ko mu tuddoon lii nii ni ñuy waxtaanee wax na li ñuy waxtaane day waxtaan ñuy waxtaan waxtaan la rek man bët bu seet mu wax lu ma tuddoon di amul benn chroniqueur booy seetaan mu wax ba jeexal te waxul lu ma wax ba pare fii si solution. <laughs> na ngi aji aji mbagg. non dama la wax li xew rek ñoom ñëpp si man la ñuy rootee. Eh? leer na waa kippaar gi. ngay rootee ci saa. non saa dañuy toogandoo rek muy jël may jël <laughs> ndax saa maa ko njëkk wax sax kon man mën naa ni saa man man si man lay roote. dëgg la. yow ñaata nga laajal hélas. léegi muy laajal El laa koy laaj mais lu xam kay damay wax. ah dëgg <laughs> gi de wóor na yàlla kon bay boo ñu tas ko wax de ñoom fekkee ci ñoom ñoom yow la ñu. ñoom ko wax daal man. aywa El Hadj. Mhm. dafa mel ni Fofana mooy weddi laas li mu wax ci buuru Maroc ak li xew. Mhm. wala li ñu wax ci buuru Maroc mooy weddi li Fofana ñoom wax noo déggee li xew li laas wax. waaw xam nga mm, Fofana moom. Mm, li ma la wax sànq moo ci ne. Mm. mooy euh, xamut li xew bëgg ñoo xam. waaw mais loolu waxoon ko sax bàyyil foofu nag. waaw moom a teg yat bi non non bëgg nga teg yat bi non non yat laa bëgg nga teg ko nag <laughs> li nga mais Seck xam nga wax naa la ne la xamut li xew. waa léegi bàyyi ñëw ci la xam nga soxla wutoon sax nga may demandé waat. waaw euh, non mais comme ñaari xabaar yi. li li journal bi wax dafa weddi foofu. waaw moom moom laa lay wax. waaw léegi Assane dafa wax lu am solo. mooy euh, muy que ni li xew nii yëpp du kenn ku ko régler ku dut booy yi. Hmm. waaw mais Assane euh, gis nga àddina dafa am fu muy toll. Hmm. am na yoo xam yenn yoo xamante bu mbir di avancer dañu war a avancer tuuti xaw a dépasser yenn yi. booy may leen waaw parce que tey jii. Hmm. non pas booy may leen. tey jii biñ demee ba wax ni buuru Maroc dugg na ci. ñu gis ni jàmm mi ngi commencé di am loolu bépp sénégalais war na saluer ngir ñu jëm ci yoonu jàmm jooju parce que yoonu jàmm ji faw tey ñu xàll ko parce que tey bu ñu ko xàll yow loolu d'accord nga ci non parce que ma wax la leen hmm. jàmm ji dama cee ànd à cent pour cent hmm. pour ñu wutali yoonu jàmm hmm. parce que dinaa la xamal mais nga baal ma jàmm ji waa ji woon la bu yàgg am na tey jii ñoo xam ni ñi ngi ànd ak président Macky Sall. Mhm. bëgguñu jàmm ji am. Mhm. kon Macky président Macky Sall bu jubalee ci yoonu jàmm ji am na lu mu ba. am na ñoo xam ne ñi ngi ànd ak Ousmane Sonko du question bëgguñu yoonu jàmm ji mais ñoom dañu jàpp ne jàmm ji ni ñu koy amee lu ñuy fuqar ci la. mais dafa am fu ñuy toll waxtaan dafay war a am pour ñu jëm ci yoonu jàmm jooju parce que Ousmane Sonko bëgg na ëllëg buy jot réew mi jot ko ci anam bu neex a defar. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. am na situation boo xam ne bu ko ci jotee. Mhm. non seulement peut-être li nga yaakaaroon ci moom yow mi koy xeexal tey. Mhm. pour mu repare mbir moomu mën nañu jëlal temps boo xam ni ni nga yaakaare woon day ñëw rek yëf yi jag mën na bañ a demee noonu. d'accord euh, tey bu ñu demee ba tollu foofu. ñu ne ñi ngi jëm yoonu jàmm ñépp dañu war jéem a moytu yenn discours yi nga xamante ni moom la ñuy def. mooy comme parce que am na yu bari discours yooyu téye nañu sax lu taay lu yàgg ay ragal laag ay kii laag di nga déggaat léegi ñenn ci opposition beneen bi nga xam ne seen mm. yaakaar tas na. Mm-hmm. commencé dugal yenn yi. daane waa ji dilkat la ay dilag mm-hmm. ay wax yooyu yëpp dina ñëw. waaw comprendre nga. Mm-hmm. parce que kii ak yooyu di nga gis ñooñu parce que ñooñu bugguñu Ousmane ko ñëw ci làng léegi nag dañu bëgg mel ni luy atteindre honneur am quoi maanaam naan moo waxoon du def lii. léegi mi ngi def lii moo ne woon du ànd ak système bi du def lii comprendre nga léegi ñooñu dinañ comme ñooñu li ñu bëgg mooy Ousmane Sonko am beneen gis-gis. beneen mer pour jéem a taxaw def nii. te hmm. fekk ne dafa am fooy toll. dafa am leneen looy bàyyi parce que dafa am fu ñu jëm foo xamante ni fii dañu war a ñaan yàlla. Mhm. képp ku bëggal réew mi lu baax yàlla ngir ñu mhm. mi. Euh, jamono jiñ toll dañoo sonn ci li romb. Mhm. réew mi dañoo sonn Sénégal. mais laas lim bind peuple bi laas lim bind gëm nga ko. non peuple bi non c'est que waxuma ni gëm naa ko wala gëmuma ko mais c'est dangay ñëw ci li war a am bunt na yu ubbeeku yoo xamante ne bi ku xool. buntu jàmm la quoi lu commencé di ubbeeku. te bunt yooyu. Mhm. dañu war a encourager lu mel noonu ngir mu am. Mhm. parce que loolu moo ñuy permettre ñu mën a dem ci ay élections yu normal. def vote yu normal kiy gañ a gañe ci jàmm ak salaam. lay am ëllëg daa dee am waaye lépp mu jëm ci yoon bi nga xamante ni bii euh, mooy yoonu jàmm woowu yoonu jàmm woowu ñëpp dañ cee war a àndandoo euh, daal di koy bay bay ngir fexe loolu daal di ñëw parce que jamono ji ñu toll ni mu son yu ku la ko wax ku la ko waxut euh, li gars yi wax dëgg la de jàmmal Ousmane Sonko mooy jàmm ni réew mi waaye it beneen côté fexe tamit ba président Macky Sall tamit dalal xelam. jàmm la tamit ci réew mi. loolu nag lépp loo xam ne mu ngi ñu ciy woo rek war nañ jëm leneen li am nag. mooy Sénégal dañ ko bàkkee woon pays de dialogue. maanaam lépp lu loolu ñu perdre loolu lu garaaw la parce que loolu waruñu ko perdre. ñu demee ba waa bitim réew di régler sunuy problème kon ñun suñu taxawaay kilifa yi ci réew mi war nañoo xolaat seen taxawaay. parce que gis nga kilifa ci réew mi dafa am loo xamante ni bi dañ ko war di wane muy lan. péete warut a am ci kilifa yi ci réew mi. maanaam tey jii doon na yomb lool problème bi daal de régler fii ci Sénégal fii Sénégal comprendre bu régler woon ci biir réew mi rek day gën a rafet mhm. parce que day nekk póotum biir néeg benn appel téléphonique rek mën naa régler waaw war a mën a régler loolu mhm. comprendre nga pas que ni ñuy xaar mbir mi di jógee ci Mohamed Sis mhm. donc la fait ko ñu def loolu loolu euh, d'accord nañu tendre jëm côté boobu comme que peut-être mën na am sori nañ ci waaye nañu fexe ba li ñu amoon bu ñu ko ñàkk muy ñuy fexe di waxtaan ci sunu biir di régler suñu problème ci suñu biir parce que tey jii même bu ko Mohamed Ciss réglé am nañ dette vers mhm. Mohamed Ciss am nañ am bor boo xamante ne ameel nañ ko wallaay wallaay parce que dañuy wax ne bi Sénégal nekkee ci ay jafe-jafe mhm. kat moo ci mujj dugal loxoom mhm. te loolu wax dëgg fa yàlla ci biir réew mi mënoon nañ fi régler lu bëree bëri d'accord